Um, seen YouTube maa ngi leen di siyaar mbaa yéen a ngi ci jàmm di lu seen liggéey nag rafet na trop macha allah léegi démb laa dugg ci seen kii ma xool seeni vidéo après ci laa seen numéro fekk ma nekk ak benn kaa boo xam ne xaw na ma yëm daal parce que dafa am xale bu jigéen bu fi nekk ci ci biir kër gi nee na ma nag daga na la jóge mais. nee yaayam dafa gaañu papam gaañu ni yaayam topp ko di ko violé ba instant yi ni daf cee am doom daal instant mi ngi fii ak doom ji mais kaa bu yéeme ma bëgg nag di leen déglu ngeen xool ba xam lan laa ci jële daal lan laa ci jële pour ci seen xalaat parce que jamono neexul dafa ñëw jóge fii jóge nee na dagana la jóge ñëw wàcc ci dëkk bi ni liggéey lay wut mi ngi sama biir kër nag ma fat mais ba tey affaire bi xaw na luus xale bi xaw na luus daal nee na dem na ci ndooy baan dem na fu nekk mais man daal ba tey doy na waar daal ma bëggoon nag ma déglu yéen waa Sénégal nan ngeen ci xalaatee ak nan ngeen ci waxee boo leen bëggee tamit bu ñu demee ba ci biir yéen waa seen YouTube bi mën naa leen envoyé ay photo photo doomam mën naa leen wax turam ak santam mais comme yii ni mosuma cee wax te damay doog a commencé pour wax ci ni ma ne xaaral ma yem fii ba xam parce que comprendre ma yi mais bi ma ko seytaanee dem bu jël seen numéro parce que cas bi mi ngeen man ci biir kër gi ba léegi maa ngi koy dund merci beaucoup. salaamaaleykum sama gars maa leen may ñëwaat di waxaat ci brigade des femmes waaw comme jigéen ñu mel ne ay kalaasu aana yi dañ leen a war a jàppale dañ leen a war a jàppale waaw dëgg yàlla jigéen ko mel ne ay kalaasu aana di nga war a jàppale jàppale leen waaw comme li ñuy def ci Sénégal baax na réew mi baax na waaw li dafa war am Sénégal sa dafa war a am si dëkk bi brigade des femmes waaw ñoo jigéen a fa liggéey pour saytu dëkk bi pour defar dëkk bi pour raxas dëkk bi dafa war a am si fii Sénégal ñaawteef yi bëri nañ fi lool lool lool lool lool dëgg yàlla fii waxuma la ñun buy dox boo day nekk si yeneen moo tax dañoo war a kam yi nii dafa war a am si Sénégal kam yi ana dem nii ay brigade de femme ak waaw dañoo kaa war a ibbi fii ay ku mel ne inspecteur ñoom tamit li muy def am na solo am solo lool macha allah si ruur bi nga jox am solo te mi ngi koy doxal normal wax dëgg yàlla Aida ah, nag wax dëgg yàlla moom moom nii moom ni ak teem gi ni mu demee moom bett na ñëpp Sénégal nag lii ñuy lii dee li ni mu dee bëri na Sénégal ñu ñoo xam ne loolu moo la ay naqar mariage force say papa di la tëddee ba nga faatu wala xale bu ndaw bu juddoogut papam tëddee wala benn waay bu nekk ci gàll bi muy nijaay muy rakkam muy magam muy lépp mu na nekk ci kër gi rek waaw loolu yooyu yëpp dafa war a jugee fii senegal gi ginnaaw dañu ne dëkk teraanga dëkk dëkk lislaam dëkk jullit war yëpp dañ ko dañ ko fay war a jëlee paay mag ñi jëm yu fi war a xale dañ ko fay war a jëlee benn ñuy maye mariage forcé yi wala xale bu ndaw bu amagul treize ans nga maye ko mu sëy loolu dafa war a jóge dëgg yàlla loolu dafa war a jóge macha allah en tant que faxamaa xaritam bi xaritam bi moom wax dëgg yàlla nu man loolu laa mën a jàppee xarit xarit bu amee naqar day am naqar soo amee bànneex day am bànneex wax dëgg yàlla bu amee naqar naqar bi da ngay loolu tiis ko waaye bu amee bànneex day am bànneex ne yow dëgg yàlla ndax ni ma doxalee nii la mën a doxalee waaw am na woon naqar am na woon naqar ba yu sonal ko lool ko sonalee lool moom mu lii fekk juguma si du du mën a nelaw nelaw yu neex daal moom jug si ba lépp leer nañ mi doog a mën a xel mi doog sedd mën a daal mu d'accord naa lool si xarit ndax ci lii lii dafa war a lii dafa war a jeex Sénégal sax lii dafa war a jeex dëkk murit dëkkub Tidiane dëkkub Lahem dëkkub xaarit dëkkub Seydina Mohamed réew bi se réewu Seydina Mohamed laa wax sax réewu Seydina Mohamed muy Sénégal ñu ne dëkkub teraanga la yu bon yi di fi jugee yu ñaaw yi yëpp di fi am te li ñu ko suyee si théâtre yi noonu la amee dëggan loolu lañu ñu war a bàyyi si dégg mariage forcé yeeg papa yi coola xale yeeg yéen am na ñoo xam ne ay feebar la waaye am na ñoo xam ne ay tayif la tayif yu leer nañ maa ngi jégalu nag. asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal yéen ñëpp maa ngi tudd Ndiaye Lo Gaye maa ngi dëkk Parcelles Casbah ah film Mœurs nag man moom depuis bu mu commencé ba léegi maa ngi nii di ko seetaan seetaan naa ko yépp ah bi bii moom passé moom garaaw na trop. parce que Aïda comme kaawu Aïda maa ngi ñëw ci kaawu Aïda ah Aïda moom warul woon deewee nii Aïda warul woon deewee nii Aïda bu deewee kan mooy léegi kan mooy protéger rakkam ji Aïda moo waroon lijjantil boppam mu lijjantil mu lijjanti pàppam yéen lii lii lañu wara lii moo wara a am na yeneen ñoo xamante ne qui abuse à sa propre propre fille mais ça c'est bizarre lii lii lañu war a lijjanti moom moo ko war a lijjanti ñu boppam ba mu lijjanti ko ba mu teg ko ci yoon ba pare waaw bu paree nag mu mën na kii génn ci film bi sax waaye nu mu deewee nii ah garaaw na trop pour man moom na waru woon deewee nii daa waroon protéger ah kaam bi métti na parce ëmb doom boo xamante ne yéen ñaa yéen a bokk yéen a bokk bàyyi kenn mënu koo supporter waaye moom daka def pour rakkam ji moo tax mu def loolu yëpp mu noppi ko munoon na jël solution solution bari nañ nañu waxtaan ak suñu xel ak suñu bopp mën ngaa wut beneen solution beneen solution waaw lii rekk laa doon wax ah maa ngi nag ñëw ci xaritam bi nga ne paa bi yaa ngi ñëw di ñëwaat yaa ngi dem di ñëwaat nga ne yaa koy lijjanti léegi ñu xool ndax nga nekk enivré est-ce que tu vas rendre à Aïda la justice on verra ça on le no feewi merci way ko ɗum rek wonno hen merci aba naka mo yeerege am jàmm mais série bi ñun doonoon nga seetaan surtout ñu jigéen ñi xam nga comme Anna rôle bi mu doon joué xam nga dafa nekk lu am important parce que jigéen ñi lañuy yee xam nga benn âge bi leen def lu leen métti di leen toroxal noo seulement ñu ñu koy def ñu koy dund mais Aïda moom li muy dund ñu bari si jigéen ñi tey ñoo ngi koy dund di ko souffrir ba xëy génn àdduna surtout parent yi dañoo war di surveiller seen doom yi tout le temps ak fu ñu mënti tollu mais Aïda lu mu joué da yee ñu bari dëgg la bu ko neexoon ba mu ko ko defee ah man de bu doon man moom mënuma ko supporter sama vie dinaa ko yóbbu police bala maa dee ñu naan papa papa mais papa bu mat papa moo jar wax papa mais genre yi duñu papa dañu yàq deru papa yi imagine sa doom bi nga sukk jur sa geñam nga tëddee ko mu am doom doom ji mu jur ñoom ñaar ñu bokk benn papa loolu loolu néewul sax lu yi nekk na loo xam ne ku ko dégg dina la metti torop mais da ni mu def dëgg la def na ko ko après mu tourné di protéger rakkam parce que ku tiim sa taaw bi ko jur def ko loolu def naa ne kon sa caat def ko soo ko defee du la saf kon ngal la ñun bokk benn jigéen xelam matut bu matoo duñ ko bàyyi muy sayi sax mais góor yi ñooñu mën a comprendre mais papa yu def lii wax dëgg fa yàlla lii c'est impossible. ma koy salué au ma macha allah di wax ne rôle bi moom joué ko dem na ci au fond macha allah di ko wax ne waaw moom dama ko soog ñu ko jox dafa bëri instant bi ci réew mi bëri na fi trop ba pare nëpp nëppal gi tamit nekk na li koy gën a yokk ah lim ci wax noonu dem na ba koy nekk yaayam ne yaayam daf na ko. xale ju nettali mu te tamit mu ngi doon protégé ki nga xamante ne mooy rakkam moo ngi fii war nañ ci wax bu baax ci jógaat bu baax a baax te xam ne na nga àdduna mooy loolu ah, dafa gudd tànk dafa gàtt tànk ñaar yëpp la boole te surtout bu jigéen ñi laay wax muy yaay yi nañu ciblé bu baax a baax njaboot ndax euh, cas yu mel dafay bëri trop te boo xamee da ngay resté bi ñu koy téye xam nga mën na la gaañ comme ni ay de joué nii ndax euh, def na foofu si la ba egg ci rakkam sacrifié wu na viom ndax rakkam et tout euh, macha allah daal laa ci amoon lu wax maa ngi jégalu bu baax nag bu kàddu yi xawee dëng maa ngi jégalu bu baax baa baax mais merci daal ci la commentaire loolu ci wax ne ay de moom macha allah commentaire la rôle bi macha allah.